suñ problème bi mooy depuis couvre-feu bi commencé état d'urgence bi ñun kese lañ fi wàccaloo 14 heures ak Kaolack ku xam Kaolack tàngoor bi ñu di ko muñ ñu dem ba mu yàgg ñu yóbbu ñu 17 heures ñu di ko muñ ñu dem ba mu yàgg ñu yóbbu ñu 19 heures te ñun événement Korité rek lañ am ak tabaski Korité gi biñ ne suba la Korité suñ bagage yëpp dafa mujj lamb jaayuñ dara ñu muñ ndax waxi kilifa mais ñu demee nag ba nga xam ne ne président nee na ñu liggéey leen couvre-feu bi dindi nañ ko. wax dëgg yàlla am bëggatuñu keneen di ñu di ñu tënk tënk boobu lañ bëgg mu jeex dañu bëgg état d'urgence bi mi ngi commencé 23h ku mën a jaay nanga nga jaay l'essentiel li ñuy ñaan kilifa yi mooy 23h heure couvre-feu kuñ jàpp li yoon li yoon digle nañ ko si def. dañoo bëgg commerçant yi ñu bàyyi leen ñu liggéey totalement jaayuñ lu ñuy nëbbu jaayuñ lu ñuy tere dañuy liggéey nañ ñu bàyyi ñu liggéey lii mooy lii mooy suñu problème beneen bi si des nag yéen waa commer yéen commerçant yi maa ngi leen di ñaan ku xëy. nanga toog liggéey liggéey ba heure bu la neexee bul wàcc kenn amuluñu heure l'essentiel képp couvre-feu bi fekk yow ak kilifa yéen a koy lijjanti. beneen bi ci des mooy dimanche président de la république moo ne woon nañ toog noppalu bu kenn xëy ci dimanche loolu la ñu waxoon euh, président nee nañu nañ toog liggéey. Euh, kii euh, ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye nee nañu nañ toog liggéey kon nag nañ leen toog ñu liggéey ñun jaay lu ñu tere jaay lu ñuy nëbbu dañuy toog liggéey président nee na nañ liggéey ministre de l'intérieur nee nañ liggéey kon kenn duñu wotalati heure Sénégal ñun dong ñoo fi doon wàcc 14 heures région yi si Kaolack yëpp li si Sénégal yëpp lépp yëpp ku ne heure bu la neexee ngay wàcc mais lu tax ñun ñu bugg ñoo tënk wu ñuy violence woote wu ñu dara suñu place la ñu yor ay responsable lan dañuy liggéey bu ñu kenn tënk